koor mooy jaamu yàlla ci téye sa bopp ci lekk naan ak sëy la ko dalee fajar bu dëggu ba ba naaj bi daal di soo dafay dal di war ci jullit mu daal di sàmm kooram ci lépp lu ko yàq bokk na ci lekk ak naan ak lépp luy taxaw seen taxawaay lu mel ni pikiir yi lay dolli kàttan wala joxe deret wala maye deret bokk na ci sëy moo xam maniw bi génn la wala jog sa soxna wala nit ki daal di koy génneel boppam amma ka gént ba man maniyam génn kooku du fay koor naka noonu ba léegi ka masiyam génn ci lu gën a wér wàccu te tey ko bu nekkee nag ku mu noot sa koor wér na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne képp ku wàccu noot kooku bu mu fay waaye képp ku ko tey na fay bés boobule bokk na ci nàmpatal ak lépp luy xeetoog moom ci wàllu joxe deret képp ku soxlaal boppam tamit ci joxe deret na dog topp mu daal di fay bés boobu boobule ci yeneeni fan bokk na ci luy yàq koor ci dudul amul werante mooy deretub règle wala deretub wasin doonte borom da koo gis ci benn minute la jiitu naaj bi di daal di so waaye képp ku def ci mbir yi ci ñàkk xam atteem wala fàtte ko wala ñu daal di ko ci forcé kooram wér na lu dul ka gis deretub règle wala deretub wasin ngir kooku moom kooram dafay dog ci dul werante koor dafa am ay dayital ak farata ñu war a sàmmonteeg moom looloo tax yàlla wax ci njeexinte yub aaya yi ñëw ci wàllu koor lii de mooy dayateel yàlla yi bu leen ko jege nii la yàlla di leeralee ay laayaam ci nit ñi ngir ñu daldi koy ragal